Thank you wa an kam jom kam wa an kam to gonɗa an an jom an kam hollen gartata jom an a a de bi nga demee ba tay mu nañu fa may xar ak bay Ya ngi ni tax sama moroom mi dama yab gila njaaɗa ha jona artan yumi fa mbiyan to jom won to jom won to jom won ha arum no kam wala kam anena ñibisul yow tamit an gila futa ha haa yow moom baa waa Fuuta joxuñu la ñaam joodo waa julli bii di ñëw waa an jom julli ne nena araani mi ala wutti mi ala pare aw yëre aw daal sama morom yaa ngi ni di ma xas mene nga tata waa baax na neen de léegi ay pël lay làq waa man tiitu ma jom de biris bi dugg na ko léegi ay bi daal lay làq léegi waa dëkkandoo ci loo nekk dëgg toolul noonu tamit arama toog nii ràcc man waa dëkkandoo koy defanteel tamit. xanaa jom jom de nee yaay yooyu yaay léegi du làkk olof pël lay làkk man de maa jommi man. ah jom yokk na loxoom. yokk na man loolu indi moo fi waa Sénégal laay waxal dañoo tàmm nag lépp lu ma wax ñu dindi teg ko ne. waaye lii may wax preuve laa ci am sama lii ma ko may ak sama tànk. kenn du waali sekk de. waaye Wally Seck day daa morom. Ah, góoru soxna ay dara laa lay tegal de. kooku du doom papa coon ji. waaye moom mën teraanga. wéeroo. waaye kenn du Wally Seck si àddina. yow mën na la wéeroo laa wax ak am jom. bàyyi Mouhamed. cim bàyyi Ndéla. ndeysaan bàyyi moomi. waa kenn day moom. kenn du moom. Wally Seck ma jàppagi teraanga. dima duma. dima duma ma naan déet. <laughs> musoo wax nag. ya nga ne lan nga ne pardon dégguma la ma wali sek Seck moom ma jàpp ay teraanga. Waly Seck mooy faramaaren bi waaw waaw. nga li xalé yi gambi complet na deux plan bi tek nga xoni yow nag bi nga dalee indi information ba tey yaa ngi may indi information bu ma neex. dama la koy jox ni nak xam nga yow doo nettali doo yëg waaw même tuti du ma nettali waaye lu mu yek mu siw deug la même tuti ndax li dafa xajjo e sama bir ki bi daal tet bi. pal bu rafet. Mm. pal bu rafet. ali baba ko Kaja. ay eh, way kay ngeen beug wuyu tamit nag. ndax day gën <laughs> a ay waay dopp da waa les enfants. ah sa ah, na. ñëw leen ñëw leen toogeen nii na bir nii na bir na bir na jotaay bi yàqu. ma ne ko na jotaay bi yàqu su muy yow. ay nga na yaatu na yaatu. information générale. waaw li xale yi naan gam bi complet na. gam mhm. bi mot na. duri palaan bi mot na. duri palaan. ko jox. nee naa doripanaan doos lay def si sa yaram di circuler partout muy sedd Wally Seck noonu la mel si xolu nit ñi. Mm. day day wëy di la baax sa deret bi di circuler nii waaye kenn moom doomu jaaga ji laa demoon seeti. Mm. moo ma woo man invité ma ndogu bu rëy rëy rëy ci àddina Wally sekk ndogu ba pare. <laughs> waaye bu fois man ma gis kuy déliré. nii ànd ak ay rabam def bu làmb saf sàpp nag ñoo toog naan ah, ma waa dafa sañse nag turandoom nga gis du moom dafa sañse faramaareen laa lay wax de doom papa Thion mhm. ak jaaga waaw ku kenn day moom góoru soxna ay dara waali sekk laa gis face to face nii kenn day waali sekk ah man de ma dëgg yàlla. Wally Seck ma invité ndogu nii. ñu toog mhm. mu may baax. ma koy baatare mu may baax ma koy baatare mu may baax ma koy baatare. Wally Seck ma baatare ko ba bay bay përiyee nii di ko baatare. baal ma nga baal ma posal. waxuma loolu. yow boo amee loo baatare dama waxee sa bëtu néeg benn. <laughs> yow man waxuma loolu. mais eh, bàyyi leen nga xam ne jaay la am bis bu Wally Seck ñëwee ma defar sama buntu néeg bi. Mhm, dafa Wally Seck ma pare Wally Seck jëlal xaas bi joxaat na ko dama ko baatare. gaaw Wally Seck duy otoom. Mhm. ba mu fees. Mhm. ay ñam ak ay affaire jël oto ba jox ma ne ma jëlal. soxna ay dara ne ma dama lay jox. sama oto ma ne ko. gannaaw mën na joxe de loxo bi dee na de waaw loolu gis bi moom. Wally Seck ndogu bi laa leen wax. waaw Wally Seck ndogu baa ngi biir El Vision Média. laaj ma ko ma partagé kenn du ñaaxarañ loo. Mm. gis nag mm. ñaa ca aay. nekk la ba ma woyee ba may baax. amee cu réeré fëre. nee na yoo yaay Wally Seck du ma woy ma ne ko yow. ah baal sama fans bi nag. danse ngay def te man moderne lay def. Ah, man a ah, danse traditionnelle. traditionnel moom moderne. traditionnel waaw waaw kenn day moom. kenn du moom. amet ci mën na ko yow dansal rek yemal ci danse may maag Waly Seck bàyyil bàyyil ci taaliba Serigne Sali boobu Waly nee naa la hmm, dafa couleur de naa ah, nee ko abima rek laaj leen ma lu muy ndogoo tàndarma ji cinquante deux tàndarma lay dugal ci côté bii dugal ci côté bii Waly Seck day war naa si tàndarma te lu ci gën a garaaw fi ma leen di wax naan Waly Seck daa garaaw du yàbbi benn xoox bu yàggee ma weddi waa kenn day waal. aywa waal jafe na waay. waal daf maa woy baax ka ma ci moom ci àddina. waal jafe doon na xale bi seeti mu woy la. waa kenn day waal jox ma xaalis bu bëri. Mhm. tey kañ leen dal leen rek. tey nuu daana daanu. seen kañ nuu daanu. Mhm. waa kenn day waali seek. kenn du moom waaye kenn du moom. du leen nii. bébé mama bébé mama a mama Alizo mama Adelaide waaye moom yow loolu dafa waali bi eh déglu déglu yaay borom ngeen di dégg ak Adama mu xale bi ci El Vision nee naa la ñu ngi koy partagé biir El Vision Média dugg leen YouTube rek dafa ndànk dugg leen El Vision Média direct ngeen koy am nii nii nii waa kenn day moom dinaa la kañee maman gi di borom El Vision Média man ñàkk maa am ci kër dëgg la xale baa ngi nii commencé jamono bàyyi nan la xel yow taxawee jarul bu ma demee ndax dama doon wax nga may nga may nga may nga may bañ a jaru ko jaru ko jaru ko jaru ko

demul. ah, ah waaw ma dégg na mi ngi woon Amérique fa la wooree. mosul dem Amérique xaaraankat yi. Hmm. jëlkatu dogu yi moo tax ñu ne woon dem na Amérique Wally Seck maa ko fekk këram fii daf maa teral teral may daw dama doon daw nii nit ñi di ma tëye ma naan déedéet bàyyi leen ko mu ñëw bàyyi leen waaye kenn du moom. Mhm. laay kon Wally demul Amérique mi ngi Almadies gii. Wally waxuma loolu. waaye ah, kañ nga ñu yóbbu ci Wally Seck. préparé leen def leen seeni sañse guddal seen i mbir. oui bàyyi ma def vaccin rek. waaw waaw ndax mu yërëm ñu. wala mu yërëm ñu bu ñu sañsee du ñu yërëm du ñu danaa génn leen fu nekk. baa rek ñu simple ñu simple man la bëgg. man mën naa sol voile. loo sol baax na. Wally Seck man la bëgg Wally damay waxtaan ak moom ba mu daanu ni di xam ma ne ko jaru ko jaru ko sama gaay bu ñëwee nga daanu reer kenn day Wally. kenn du moom. yow bàyyil defar bi bàyyil defar bi fi mu ne nii tudd naa Wally kañ danga may defar. day defar bi rek. waaw man gëmuloo woon sànq fii jom waxoon na dama yónnee xaalisu korité bi. man boo bëggee ma jox la ci xaalis ma maanaam. annulé ko man la ma yor waali sekk jox ma ba mu doy. léegi bu rose bi sogo man sama redd bi laa lay jox mooy 36 bi. li ma sama tonton Alsaan yónnee woon. jërëjëf yow. kii dañ ko yërëm yërëm ko rek. moom naa la baax la jëkkëram ah? yow xam naa Wally Seck bu ma joxee naa la ci partagé. pour mu fay luwaas. na déggal rek la muy maman Aris borom El Vision. borom nooy mooy taw sa noonu. kii Ameth Thiou. waaw ak Amady Badja. waaw la ñu fecc amul de. gis nga Amady Badja. Amady Badja. boppam bi ak daa dëjji nag de. waaw dëjji la yow. gis nga laxi léegi comme jalu suuf. waaye moo tax ko nank ñuy wax man waale wax ak man te waale man la bëgg yéen ñii bëggu ci kenn man la bëgg. Ah. waali man lay woy ba fajar. amet ci man waali di ma woy ma ne ko feccal ma ne du fecc. ma ne ko yow danse traditionnelle ngay def te man. niveau moderne laay def. traditionnel ñuy wax maman ma ko waxee rek noonu laa ko mënee. waali comme ko dégg na ma rek. jabar ko jox ay li yaabale ko xam nga dara ci xale. kenn du waale baara mbay mbata na dem ca taas laay may pon kindiriñ kindiriñ du jël ngeen loolu. waaw. sañse leen ba jekk na. man man du ma sañse de parce que laay def. ndax ngeen ndax daf maa war a si fii.